Là, c'est la reine de Saba. Ah oui. Mm. Oh. Et puis, tu sens bon. Ah, euh, tu as bien dormi. Très bien dormi, même. Mm. T'as eu un euh, Non, non, non, non, pas ah. Je fais du jus d'orange. et mm-hmm. le jus d'orange. Mm-hmm. Je prends croissant. Mm. Ah bon? loo def ma def ko. oui ay café gi yëpp. Hmm. waaw li ma def du foog ma am remontant. <laughs> xam nga li ma wax dofoo. dofoo. raison pour laquelle xaaral ñu ne wax neex. ah bon jeex hmm. ah. Eh, ko. macha allah. merci moo ñu mi jëlal ba pare ma doog a jël yow yaay jëlee ba pare ma doog a jël. <laughs> yow yaa gën a ma baatee. à notre amour. à notre amour. Mm. à notre bonheur. y na la a le astafurlah la Y a le mm. mm. <laughs> mais nag nga xam ma <laughs> donc gisoo ni ma mm. mm. teel a yow nii dugg ci waañ bi petit déjeuner bi teg. xam nga tak lii dafay ci man. su ma yow tag nga ne ma kontaan naa. sama xol day sedd. waaw lan ma nga ma nga ma ah ah Jamil arrêté. xam nga guddi may borom. te da hmm lëndëmal néeg bi boobu lëndëm. te la mbay fay waxoon moo nekk ci man lu mu lëndëm maraaka jiit bi nga xuusee jàll ah xam nga ni ko kontaan nga ci man te yow xam nga ni ngaa toog cinq jours mm-hmm. defoo dara démb de yaa raw Sadio Mané alors ah, waaw ba mm-hmm. na loo narati am na loo way wax waa bay waaw sa jooy doo ko bàyyi dee ñu suul ma moo ma ta moo ma gënal ma bàyyi jooy yi <laughs> bànneex tubaab yi xam nga lu ñu wax bànneex génne ko dafa am ñaari façon banex yi nga koy génne soit nga rétan soit nga joy man nak j'ai opté pour les pleurs su ma amee bànneex da koy joy sa man des nga joy ma yiraw la waaw waaye des fois ma dompet la nga rëy ma contane est ce que xam nga sama digganaaw bi bis moko ko summi won won ko wa biti lima ma fi cicatrice rek la nak nak may daj xeeb xeeb comme kay ay ah, ah.

ndax ngoon ngoone wujju di wujju de wujju peccor ko may wujju su la neexoon nga def ma wujju di defanteeg man doo ma mën a supporter waaye dépp yi nga ñëwee ci kër gi ba léegi musuñoo xuloo musuñoo xeex jàmm rek lañu séq nga nekk ku dal ku yaru ku baax amoo benn problème kon yow lu ma def ci yow yow tam mën nga ko def si man loolu dara yaa ko moom. te kontaan naa kontaan naa trop trop sama xol bi dafa sedd fi nga ma jëlee sama xol bi sedd na waaye nag tey. li nga xamni nak ma lay togal togal la togu gu neex tajal la bo beugé ma ñaral la bo beugé tamit ma tayal yow ci nga dëkk di yow kat ci loolu nga dëkk ak man nak dëgg yalla nak vraiment kontaan naa yow mom del am jàmm rek ah. tam yalla sa jàmm yow nga def no def sa wa yang ci jàmm ma ngi ci jàmm ah Adja ngone ci loo yeena ngi waxtaan waaw ñu waxtaan euh, damaa gën a kontaanati parce que li rek mbégte la mhm. Euh, dama lay jaajëfal yow waaye nag biram moom dama koy beral à part ndax lépp moom la vraiment coow yu fi doon am nag xam naa ni lépp sax cent pour cent bi yëpp ci man mii lay doon parce que moom amul benn problème ku baax la yi fi jotoon a jaar nag nañ ko gas ba mu xóot ñu suul ko gis nga jàmm nu mu neexee dangay nelaw ba doyal fan yii gis nga déggatuma benn problème fan yi maa ngi dund samay xéewal maa ngi xàppi maa ngi noos sama jabar no problème lii daal laf cat <laughs> laf cat daal jàmm lépp mm. soo amee ay milliards te amoo jàmm daanaka mu zéro yam lo am bala nga ko lek sa tey bakkan da fek nga am jàmm kon yal nañu yalla may may jam te kep ko xamne ya nga indi ay yalla bu la si jappale deug la li rek moy adina li adina amul solo li lepp dañ koy netali mm-hmm. ah kon mi ngi ni nan la nettali ko rafet netali parce que man mënutuma am kilifa fi ci kaw suuf bu sut biram amul mom moy sama kilifa mm-hmm. te et puis man reconnaître na lol nangu ko mais nak ay bruit mënul ñak mais bu jexé jexna te ñaanuñu yàlla delluwaat ci yooyu yéen tamit yéen ñi nga xam ne yéenay jigéen ñiy sëy damaa bëgg ngeen gën a góorlu jàppante bi gis naa ko rafet na mais na gën a suudewu bu leen dugal kenn seen biir dégg nga yéen moom kër gi ñun moomuñu ko ñun bu ñu xëyee dañuy dem wuti lu ñu am yéen a fiy nekk yéen xool xale yi yéen ay kër gi kon yéen boroom kër yi man daal li may bëgg mooy yàlla na leen cat seexlu yalla bu ngeen dajal lo leen ragal. amin deng nga. <laughs> amin way bég na nak tekan nga gaari sax mm-hmm. euh xam nga lu beuri dañ ci wara xol mafal. deug la. ndax bu wuté kër gu bax mm-hmm. ci loxom yalla ci loxom lako jaarale. ñew tek ñu ci genn ñu ci lu yaas ay burweek ay ciow sax nag nag dafa rafetul. dafa rafetul dafa jekul. Mm-hmm. bu yagge sax dañuy dañuy jéppi. la ah nañ ko nañ ngeen ci nañ ko ci xol et puis nag ci xamul gis na koñ bi bokkul ak koñ nga xam ya jik ci gis ku indi ay ndëndëm reba bi tabin reba yoy yëpp amul koñ bi dafa doon quartier yo xamni résidence la tay bo fi dagoné ni dañuy appel la gendarmerie mu ñëw légui légui ñuus leen ci gribi way yu bari nañ ko dañ ko sóoraale dal nañ ko bayyi xel sant yalla rek man nak ma ngi jóg ma ngi wacc ci suuf sama neeg bi laa bëgg défar sama bagage yëpp a fay dama son dara duma ko def ma ngi ñëw préparer de marché waaw waaw <laughs> gis nga ngone affaire bi mun naa bañ a metti ñii comme ay dof lañu te jëkkër ji day ñoddi affaire maay kilifa gi nañu doon kilifa bu nu yoree ñu nappatu leen ba lekk ko balal ñu dem ah loolu laa gis de. ay nu nuy def neneen. sofur laa. yaa ngi da ngay kat dégguma la bi muy dugg si laa dégg ngay waxi soixante quinze bi ma costé fii. <laughs> ku yow da déglu. waaw damay déglu. ay nijaay waaw waaw kay fi mu toll am nooy def da jox huit yi huit yi nga may jox. bu ko defee après ma téyel la trois heures et demie su ko téyee. yow foo toj bërëb bi di jox deux cent mille rek maa sédd. mais yow Ngoné man suma ma amee yow sa fierté la. fierté yow Ngoné da ngaa war a sant yàlla bu ma jël xaaj def ko sama down nga may laaj may comp di la jox yow loolu da nga cee war a bëgg. bopp sa bopp moo xew. aha wan bay wañ lu golo xam bote doomam. deug la amul problème. bop sa bop amna lo loo xam ne ko sa bop bañ ag ci moy lan. ah xaw ma de. waaw maa ngi dem marché damaa yor lu doy fas yéene laa toggal toggal bu sax bu neex taajal la xam nga dama la wax suñu paree ma attaa yàlla baa ma njaral la soow yow li nga bëgg rek tey moom laay def dégguma la de doxuma la nopp bu baax yow ay ree nga def de ah da ngeen am xaalis yéen waa ko yéen yéen am bii kañ ngeen ko am xanaa lii mooy am fit ak man bëgg histoire ak man a coow moo tax nga fekk ma fii naan ma dama lay toggal lu neex man ngaa mos a gis benn jéeg dama toggal mati loolu dara nekku ci maa ngi ñëw nii def sama tokk tay fas yéene ñoo dem marché yoonu sama leget. man tailleur bi gën a mat ci tailleur yi sax mosuma gis mu wax toq taay ma yaay naan toq taay ma ndax ni la yàlla bindee tax man du sam moroom du ma sa mbappandoo nag lañ naan carte bu ñu demee ba sat bay fay rey ah carte ga neex na. moo tax na nga war a xam ne bul bi day tourné. mais bul bu egseegul ci yéen. ah waaw yow danga may moqe wala danga may wut. bul bu egsee gul ci yéen yow mënoo togg musuma laa gis nga yor peñe marché moo tax nga yor sa këll gii maam ya daan yor ndax xamoo dara mënoo dara ngoone faal boo ma moytul kër gi naa la fi dóor ba jox la loxo naan la bu doyul ma dolli bu fekkee nag sa bakkan bi daa repp sama loxo bii lay des dinaa la dóor ba rey la ci kër gi ku ma fi moytul bakkan dina fi tëdd ah. lu waaw lu barki yonent bi deret dina sottee ko bakkan dina fi tëdd sa deret baa ngi eh, eh, waaye fo waxe ni bakka dina tudd wala dara dina tour yow xana yow cooy nga yow yow gem nga yow yaa mun nit non dama ni yow lan la yow mu no wax say wax rek wax wax bu simple lan mo fi jar ciow keur gi fi jam la paix lañ wote ne ko la ma ñam bi na arrêté. yow eh taxawal. eh la ma ñam bi may jëmele ci man na arrêté. du am galami du am galami ah bon dama ne du am am nga wala amul lami bu la talé lami nga talé ko so lami mu té non ngay arrêté non non may ma jaar dama wax ak yow ci biir wax ak yow ci biti mënoo maa dégg. yow mo ma gi wu ci keur gi

ta yow mënoo xex ak mom ndax ki boko gañé ci caabi fété la ginaaw tos mom su la gañé dara du ci dik ndax mi ngi ay këyitu dofam ay këyitu dof la yor ma bëgg nga bàyyi ciow li ci kattanu yalla yow luma la ñaan nga may mako ko mom lima bëgg mënu ko yow defal ma lima bëgg jàmm am te ngeen bàyyi tout temps ki ma ngeen bàyyil mako ta yalla rek tax fo nga ne su fekkoon ni la man na taxaw muy doore man di di di sànni ay koros ci sama ginaaw bàyyi lepp mu sét man tay tay ci yow laay aji yokkal lii yokkal dépense bi toggal dëxinu Saalum dëxinu Saalum. xam nga xaw ma nu ma lay def naa la toggal ba mu neex waaye nag na xam leen bu fekkente ne ni moom dafa am ay rab walla ay këytu dof na xam ne man Mamy Wata mooy sama maam. ma dem marché bi. waaye léegi yéen ngeen foog ne ak nii léegi kër gi dina am jàmm. ngeen foog ni ak nii kër gi dina am jàmm parce que kenn ku ne yaa ngi xëj di jëmale sa maam te fii ñëpp ñoo am maam moom bu taxawee ne ni mboosee sa maam ma ca kaw la nga dem ni ma mi warta dem dem nga ko di man maa ngi ci maam Kumba Bang maa ngi ndar fii parce que ñëpp am na nu maam mais yii rek lawul situation kër gi nag ku ne teg maam moom fële te ñu daje waxtaan c'est ça loolu mooy le problème ça va Ça va bien. yaa ah, ngi ci rek. Nak mbir ça va alhamdulilah. alhamdulilah. Eh, an sa papa. sam papa de Si ci kaw la yendu fa la sax añee mu papa ngaa resi suba ba tey ñoo ngi waxtaan. Hmm. Ah, waaw. waaw hmm. kon xam naa man foofu laay dem ci kaw. mais loolu si kaw hmm. mais bala maa dem dinaa waxtaan ak yow tuuti. ndax yow umpale woon sa baay man mii la la bàyyale yow buñ la waree maye su ma toogul kenn du la maye lii yàlla dogal na ko ci mam moo tax nag ma xam ne lu baax boo koy def dañ koy war a gaaw ana booy liif télef moo ngi fe na ko mu jeex parce que nag gis nga màngo bu ñoree te wittoo ko njugub yee fay jaar yàq ko te yow yéenewuma la njugub yi comprends nga il faut boy bi ñew waxtaan ak man ma wax ak mom ma may ko jabar ndax nak gisé nañu benn yoon man ak mom ba mu defal ma teranga ju reuy te teranga teranga moko mëna fay soxla na boy bi fi Papa li nga wax yépp dëgg la te li la kilif defal yow ya ko mom mm-hmm. waye bu doon tay tay. bu ngeen ma mayee kilif ma sëyee sëy rek laa bëgg. Hmm. dafa am luy ñuul ci soow bi. soow mi gi nga sam papa dafa bañoon kilif di ko toroxal guddeeg bëccëg suba ngoon hmm. mu xëy xëy nanguwaat ko te lii xam naa ni intérêt la toppee kilif loolu kese moo ma si jaaxal. Euh, tuti da nga don xalé gis nga xalé dina taxaw di sentu du gis dara mak tok fim tok di gis lepp sa papa wul am amuli kilif ñun liñu dacc ci yow xontu la ba nga toll ni mel ni nga wara mel mel fa kala ma sha allah sama ciatu làmmiñ dacc ci yow lu ne dinañ la xolaat ba nga yemu ñu jëlaat la di joxaat ka social ñun ñoo doon ka délo la ci cas yaa ngi dégg sa papa wutul ci moom intérêt jom la ko bëggaloon bi mu ko nee bu fi teget sa di ko sëfal di ko sëfal nan nga gisee nan nga gisee liif solul dàllam dem liggéeyi wuti koom am ko dellusiwaat loolu lañu bëggoon ci moom ba loxo yoo nekk suñu xel mën a dal gis nga jabar kenn du yërëm nit di ko may suñ la yërëmee may la jabar bu sëb sëdd di yalwaane bu mu la bett ñun mayewuñu jabar ay yërmande danga koy mën a yor ñu may la ko te lii lañ ko bëggaloon du am na ko mën na ko yéene na la ko lan lay xaar na ñëw. kilif toppewu ko alalam bi mu yor ndax dama ko bëggoon ba dara dul dara kon damay continuer di ko bëgg. bis bu paree nag dina ñëw. am tuuti lan mooy problème bi yow yaa ngi bëgg soof. ndax di la wax nga ma bëggeewu ma ko alalam bëggeewu ñun bëggeewuñ ko alal ñun yow la ñu bëgg boo bëggee dañ lay bëggale ñun faalewuñ ko ak alalam ñun yow lañ bëgg a teg ci côté bu leer ndax yaa wax nga ma ko léegi da ngaa bëgg a sëy ku bëgg a sëy nag da nga koy jàppale mu sëy miinante te daa am lu may bañ sama seen seen seen diggante bi yéen ñaar loolu laa ciy bañ jox ma numéro liif avance garaaw man dinaa ko woo jarul ma la jox numéro. Hmm. waaw yéen a woo ma numéro bi. dinaa ko woo. 11h maa ngi ci kaw ci sa papa. voilà maa ngi kaw. mais Nana il faut que tu m'aides chérie ñi ngi may woo matin soir te clients yi rek ñoom ñoo may woo parce que wax naa ak ñoom ba pare mais conteneurs yi kañ lay génn mais yow yaa ma mën a dimbali chérie

te xam nga avancé naa ak ñoom ci ay kàddu ba pare hmm, c'est ça le problème. conteneur yi nga bi xam nga procédure bi mais balaa boobu kañ am na leneen ak nekk nañu jéem a liggéey si loolu ba pare. non xam nga tamit problème bi mooy dafa am nit ñoo xam ne dafa am lu ñu soxla ci marchandise. Hmm. yow da ngay indi ay fil de pêche. da ngay indi ay ouvreur da ngay indi ay extra plat da ngay indi ay fer à passer da indi ay micro onde Yo, xam ci ay lavage pressing yo xamni machine yoyu mom la nit ñi soxla parce que modernisme la wax quoi te mom la nit ñi soxla client yi loolu soxla donc il faut pas me perdre leen ñooñu te wax naa ak ñoom ba pare. waaw vu que ñu wax nga ak ñoom kon lan moo tax joxaguñu avance ba tey en avance bi. non mais Nana tamit waaw aussi nan lan lay mën a joxe avance te gisuñu marchandise man bu conteneur yi génnoon sax même bu fekkee daajeeguñ ko ma yóbbu leen vers les conteneurs présenter leen marchandise bi ni les marchandises yaa ngi alors que dinañ am espoir pour accrocher vous gën mais loolu nak yow vraiment il faut que tu me reviennes le plus rapidement possible quand même. ah wa kon baax na instant je vais faire tout mon possible parce que gis nga chaque jour Je ma xëyee damay dem port pour jéem a lijjanti loolu mais d'ici pas Inch'Allah.. je pense bien que ça va ça va se faire. ah mais vous avez intérêt parce que yow man chiffre d'affaires là Je mos a defal chiffre d'affaires là la mos a defal. donc il faut. ah ah ah ah ah ba ma gisee la fii kontaan bébé moo ñumi ñumi alhamdulillahi rabbil alamin kilif ba ma la fi fekkee kilif sa jataay bii neex na ma torop kilif man su ma gisee kii gisuma keneen yow fu mu toll nii pot de fleur bii yéen laa laa yemale bàyyi ma ma wax wii parce que kii ah dinaa la wax lenn ci kii nga teel ma ko bu baax a baax kii Jigen bu meun góor la je te prends témoin limay wax dama ko bëgg wax te inshallah allah rabi def live tiktok wax lima ma lay wax ni dina ko waxat ba nit ñi xamni limay li may wax kafuma ci jigen bu meun góor ngi ni kuma ma sanga ngi ni kuma ma sanga ngi ni kuma sutura ngi ni kuma woddo ngi ni numa mel mom la kilif metti won na fi ma yore ngàppati daw ma sama ni jaay mon compagne y compris toi. ah mais bien sûr c'est une maladie contagieuse quand même. mais nga daw ma mais mon dawuma ay je la là. masque Je suis gannaaw këree mu laab ma. dama eh day leer Je ah, wax lépp su ma mu je ba mais là? tu l'as hérité wala. mais c'est pas héréditaire. épidémie là. kilif. maa ngi lay wax mm-hmm. li ma lay wax nii di la ko seddaloo góor musu koo seddal jabaram maa ngi la ko maa ngi la koy wax kii su ma mayoon si dëkk bi mm-hmm. baal naa ko ba keroog muy dee lu ma def baal naa ko maa wax lii te dinaa lay gën lenn mm-hmm. xam nga nan laa ko tuddee frigo saa yu ma tàngee mu seddal ma waaye nag dama lay wax lenn loo xam ne mooy daj dëpp bi daj dëpp bi laa lay wax xam nga daj dëpp mooy lan dama bëgg moom mu solu ba rafet ma solu ba rafet nga solu ba rafet ñu ànd mairie grande ville ba laa mairie ville waxuma mairie ndaw yi de mairie ville ba bi Babacar Diop dirigé Babacar Diop toog ma toog ma dem toog nga toog ñu jàkkaarloog moom ma ni leen gami lay signé si ah. gami lay signé nak waaw ah, waaw waaw waaw oui elle le mérite elle le mérite mm. xam nga lu tax elle le mérite xam nga lu tax may signé gami Oh Waouh, ah il le faut. J'ai pleuré. Hein J'ai même frappé. Je me frappe, mon ma dóor sama parce que suis un bébé, mon bébé ma ko na mon ma am. mais quand la jox jox na nga jox ko. kon si ah, non atteindre le leçon. atteindre le non tu as atteint <laughs> vraiment non non non mais félicitations. y rek laay ñaan Y waaw. yàlla Yalla, ma il may ma ko ñetti cher. Mm. su bëgg ko. Mmh. xam naa ni boobaa di nga jël ñaari tudde ma ko ndax cofeel gi nga am ci man. du ma tuddee tous laay wax nii. du ma la ah, tuddee du ma ko tuddee kii xam naa. maman quand lii moom. vraiment euh, neex na te yàlla na ci yàlla def sutura. amiin yàlla na ci yàlla def dina si def sutura. ca paalaaju góor njëgën laa demoon. Oh. ñaan naa ci ba pare jugal dem ñibbi jugal. <laughs> maman s'il te plaît les nga veillé ci waaye. amul benn problème naa ci kilif defal kilif kilif eh, taxawal taxawal taxawal taxawal. Hmm. bébé fii marché bii ceinture léegi deux mille francs lay jar taxul ceinture xam naa la yaa ngi jug di yëkkati defal voilà defal xool defal xool xool xool xool ñun dañuy waaj dem xool gis nga gis nga gis nga da bébé yow nag wuy ma gannaaw dama laa dig ay cheikh pour wan la kontaan naa si yow ban heure seize heures vingt cinq nan la néeg ba. wuyu ma nan def seex yi moom par force lay ñëw. yii du ma la bàyyi jógal jógal ñu dem néeg ba ñu def ñu def dara.